waaw parce que boobu sam papa mu ngi gaañu. Hmm. te xam nga nag euh, këru ndaanaan bu nekk bu fa kilifa ga jógee rek day commencé doy waar. ma ne bon comme que am naa tuuti loo xamante ni am naa ko ci aar bi. Hmm. Ah, xaaral ma xool nan laa mën a def ba. Hmm. li manqué ci kër gi ma ko ci mottali. xam nga. voilà yàlla def ma commencé di dugg ci théâtre bi di laalantu aar bi noonu. yàlla suturaal ma ndeysaan aw seen saar benn mhm. ndaanaan bu mag maa ngi koy remercier nit ku baax dem naa ba Bruxelles seeti ko macha allah daal di ñëw ci sunu école gis ma may joué mhm. ma est que mënoo ñëw di répété si man ko anke ah, léegi nag ma commencé dem di répété mhm. ci répétition ba ma daan répété pour pétaaw bi la tuddoon ndeysaan may répété pétaaw bi yàlla def bu ma demee répété pétaaw bi bu ma joxee transport bu ma jëlee transport bi damay ñëw wàcc marché ndugg su ma nduggee dem yóbbul ko sama yaay. ah bon waaw donc gis nga noonu laa commencé donc bi may tàmbalee yëpp lépp loo xamante ni moom laa doon def rek mooy nan laa fexe ba sama yaay nekk dans de bonnes conditions. Mhm. bi kenn du jooy dara. Mhm. voilà donc noonu laa.